welcome welcome dalal ak jàmm dalal ak jàmm bienvenue bienvenue marhaban bik marhaban bikum hoş geldin hoş hoş geldiniz. What's your name? What's your name? No to No to No to Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? masmuk masmuk masmuk adınız ne adınız ne adın ne adın ne my name is my name is my name is laa tudd laa tuddu laa sama tur mooy sama tur mooy je m'appelle je m'appelle mon nom est mon nom est mon nom est Ismi ismi ismi adım adım adım where are you from where are you from where are you from fan nga jóge fan nga jóge fan nga D'où viens-tu? D'où venez-vous? D'où viens-tu? D'où venez-vous? D'où Min aina ji't? Min aina ji't? Min aina ji't? Nerelisin. Nerelisin. Nerelisin Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. bég naa ci xamante bi. bég naa ci xamante bi. bég naa ci xamante bi. enchanté. enchanté. enchanté. ravi de vous rencontrer. ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Surirtu biliqa'ik. Surirtu biliqa'ik. Surirtu biliqa'ik. Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Good night. Good night. Good night. Nu fanaan ak jàmm.

Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. ak jàmm. Nu ak jàmm. Nu yendu ak journée. Bonne journée. Bonne journée. طاب يومك. طاب يومك. طاب يومك. أتمنى لك يوما سعيدا. أتمنى لك يوما سعيدا أتمنى لك يوما سعيدا إي جونلار إي جونلار إي جونلار Bon appétit Bon appétit Enjoy your meal Enjoy your meal Enjoy your meal na ci jàmm bari na ci jàmm bari na ci jàmm bari bon appétit bon appétit bon appétit شهية طيبة شهية طيبة شهية طيبة بالهناء والشفاء بالهناء والشفاء بالهناء والشفاء عافية أول سن عافية أول سن عافية أول سن Have a safe trip. Have a safe journey. Have a safe journey. Have a safe trip. Yoonu jàmm. Yoonu jàmm. Yoonu jàmm. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة رحلة موفقة رحلة موفقة رحلة موفقة yi yool juluk laar yool juluk laar yool juluk yes yes yes waaw waaw waaw we wii we نعم نعم نعم evet evet evet no no no did it did No, no, no. La, la. Higher, higher, higher. Maybe, maybe, maybe. Man na am. Amana. Man na am. amaana mën naa am amaana peut-être peut-être peut-être rubbama rubbama la'alla la'alla rubbama la'alla belki belki belki Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Ndax dégg nga angale? Ndax dégg nga angale? Ndax dégg nga angale? Parlez-vous anglais? Parles-tu anglais? Parlez-vous anglais? Parles-tu anglais? هل تتكلم هل تتكلمين الإنجليزية؟ هل تتكلم الإنجليزية؟ هل تتكلمين الإنجليزية؟ İngilizce biliyor musun? İngilizce biliyor musun? İngilizce biliyor musun? İngilizce biliyor musunuz? İngilizce biliyor musunuz? İngilizce biliyor musunuz? A little. A little a little tuuti rekk tuuti rekk tuuti rekk qalilan qalilan qalilan biraz biraz how much is it how much is it ñaata lay jar ñaata lay jar ñaata lay jar c'est combien c'est combien c'est combien kam si'ru kam thamanu kam si'ruhu kam thamanuhu kam si'ru kam thamana ne kadar nekadar nekadar thank you thank you thank you jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci merci merci shukran shukran shukran teşekkür ederim teşekkür ederim Teşekkür ederim. You are welcome. You are welcome. You are welcome. Noo ko bokk. Noo ko bokk. Noo ko bokk. Je t'en prie. Je vous en prie. Je t'en prie. Je vous en prie. laa shukra ala alwaajib. afwan. laa shukra ala alwaajib afwan laa shukra ala alwaajib afwan bir şey değil bir şey değil bir şey değil rica ederim rica ederim rica ederim where is the where is the toilet where is the toilet fan la wanag bi nekk fan la wanag bi nekk fan la wanag bi nekk où sont les toilettes où sont les toilettes où sont les toilettes أين المرحاض أين المرحاض nerede toilette nerede toilet nerede? Do you often come here? Do you often come here? Do you often come here? ndax dinga faral di ñëw fii ndax dinga faral di ñëw fii ndax dinga faral di ñëw fii venez souvent ici venez souvent ici هل تأتي إلى هنا غالبا هل تأتي إلى هنا غالبا هل تأتين إلى هنا غالبا هل تأتين إلى هنا غالبا Buraya sık sık geliyor musunuz? Buraya sık sık geliyor musunuz? Buraya sık sık geliyor musunuz? I miss you. I miss you I miss you dama la nam dama la nam dama la nam tu me manques tu me manques tu me manques ashtaqu ilayk ashtaqu ilayk ashtaqu ilayk seni özledim seni özledim seni özledim me too me too me too ak man tamit ak man tamit ak man tamit moi aussi moi aussi moi aussi وأنا أيضا وأنا أيضا وأنا أيضا ben de ben de ben de Get well soon. Get well soon. Get well soon. Taneel ak jàmm. Taneel ak jàmm. Taneel ak jàmm. Bon rétablissement. Bon rétablissement. Bon rétablissement. أتمنى لك الشفاء العاجل أتمنى لك الشفاء العاجل أتمنى na الشفاء العاجل Get me all soon. Get me all soon. Get Last Friday. Last Friday. Last Friday. Ajuma bee weesu. Ajuma bee weesu. Ajuma bee weesu. Vendredi dernier. Vendredi dernier. Vendredi dernier. الجمعة الماضية الجمعة الماضية الجمعة الماضية geçen cuma geçen cuma geçen cuma every morning every morning suba suba su jot suba su jot tous les matins, tous les matins, tous les matins. كل صباح, كل صباح, كل كل صباح. حير صباح, حير صباح, حير صباح. Are you danga gëmmentu danga gëmmentu danga gëmmentu tu as sommeil tu as sommeil tu as sommeil هل تشعر بالنعاس هل تشعرين بالنعاس uykun geldi mi uykun geldi mi uykun geldi mi حو حو حو كم كم كم كي كي كي من من من كم كم كم where where where fun fan fan u u u aina aina aina nerede nerede nerede when when kañ kañ kañ quand quand Mata Mata Mata ne zaman ne zaman ne zaman when I was a child when I was a child when I was a child ba ma nekkee xale ba ma nekkee xale ba ma nekkee xale. quand j'étais enfant, quand j'étais enfant, quand j'étais enfant. عندما كنت طفلا عندما كنت طفلا عندما كنت طفلا ben çocukken ben çocukken ben çocukken